tay ñi ngi ñi ngi tassé fi ci sommet international ndax juroom ñetti réew ñi ngi def li Sénégal di def tay euh, dembal la tàmbali ak tay euh, fi nak sommet bi mi ngi doon jublu ci waxtaan ci euh, objectif de développement durable yi ñu dëgmal naka la ci kuréel yi war a taxawee naka la ci inclusion maanaam nit ñëpp kenn ku nekk di yéeg sa bopp ci li nga xam ne mu ngi dox ci réew naka lay mënee ne économie sociale et solidaire tamit acteurs yi ban taxawaay lañ ci mais surtout responsabilité sociale d'entreprise également mooy maanaam euh, entreprise yi nga xam ne dañuy nekk ci ay gox dafa liggéey liggéey boobu ñuy def ak la ñuy jëlee ci liggéey boobu naka lañ ci mënee jël pàcc aussi delloowaat ko ca fa ne buñ koy waxtaanee ñun ministère bi dañ ci surtout que depuis le 15 juin euh, yéen ñëpp xam ngeen loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire adoptée nañ ko assemblée le 4 juin bi passé depuis le 15 juin président Macky Sall promulgué na loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire kon dorénavant muy ci wàll ñi ñuy acteur de l'économie sociale et solidaire Euh, seen taxawaay ak lan la ñu war a am ak naka lañ ko war a amee tënk nañ ko ci loi mais RSE bi également euh, day jóge ci statut boo xam ne nit ki ci sa coobre bopp yow yaay jug ne bëgg naa def nangam dem nag ci boo xasee ba am coobre boobu naka nga ci war a taxawee loolu lu am solo la moo tax daje bi ñu def tey nga xam ne àdduna bi yëpp a ngi koy waxtaanee Sénégal bu koy waxtaanee day gën a am solo ci moom mi nga xam ne am na cadre réglementaire. li ci des mooy nit ñi waxtaan te secteur privé bi fi daje tey ak yeneen acteurs yépp liñ ci mën a jàpp mooy kenn ku ne pare nga pour def si sa pàcc pour loi boobu nekk ñu koy rafetlu bu baax a baax ñun ministère bi moo tax du ñu yem fii bu ñu jugee fii tey dinañu xoolaat secteur yépp kenn ku ci nekk balaa ñuy finaliser décret d'application ñu jël si sa xalaat xool ci sa taxawaay seet nuñ koy defee déjà li ñu jàpp ci daje bi tey mooy war nañu mën a am fond boo xam ne sax pour wàllu RSE la nga xam ne kuréel yi kenn ku nekk booy des ci sa cœur de métier aussi nga mën a am pàcc yóbbu ci ñeneen ñi mais également war nañu xool benn cadre boo xam ne cadre RSE la wut ay banque projet maintenant li ñu seetlu mooy te entreprise yi wax nañ ko mooy benn dinañu bëgg def duñu xam fu ñuy jaar ñaar euh, ci seen jëmm bopp wala ci seen xam-xam ak la ñu waxtaanee ci askan bi la ñuy jaar pour def ko xëy na sax li ñuy def néew na ci seen i capacité lu ñu mën mais loolu aussi ñàkk xam moo koy indi kon tey lii ëpp solo mooy benn bu baax bi ñuy def su ñu mënee dem ba juróom wala fukk ci yoon yoo xam ne du lor kenn parce que encore une fois muy acteur yi muy aussi entreprise yi kenn ku nekk dafa am no wara taxawé ak lo wara def kon tay li ëpp solo moy ñun ñëpp andandor nañ taxaw ne euh, ndimbalante bi nga xamné ne ñi ngi koy def suñu biir mu tasaaroo nañ ko dajalé lolu c'est une avancée ñaareel bi moy buñ koy dajalé naka lañ koy défé yoon ñëw taxaw ne teunk na ko fii ngeen di jaar kon bala ñuy wax dara dañuy andandor tok xol li yoon wax après ñu sét li gën ñun ñu porté ko économie sociale et solidaire dafa am solo ndax dañu jàpp ne secteur bu économie sociale et solidaire ñuy ëpp ci nit ñi nga gën a xam ne mën nañu wax ne dañu mel ni ay groupe vulnérable dañ fa nekk donc dès lors que secteur boobu ñëw na euh, loi bi indil ko ay avantage ba ne nañu jaax ci RSE bi pour gën leen dëgëral li ci des mooy ñu fexe ba yoon bi ñu mettre ko en œuvre pour la mise en œuvre nak c'est euh, dañu nek ci jamono bo xamné jamono jamono waxtaan la kon bu ñu àndandooree waxtaan certainement les meilleures solutions dinañ génn.